spontan dem li nga xam ñun ñoo mën ko jógal suñu bopp ñu ut benn groupement boo xam ne ñu dëkk sopp suñu ba ma koy sopp dem naa ci sàngam wax ko ko mu rafet ko ñaanal ñu ci ñëpp suñu bopp di ci liggéey ngeen ko ko

ñuy ñaan fu ñu mën a jàppale ci ngeen jàppale ñu ci ndox moom jàppale ci tëgg ak may moom fay sos te mënuñu ci dara ngeen jàppale wóor na seen personnage la ñu ndax te tëral mën na faa nag ay jigéen lañ lañ dañu liggéey jox suñu bopp yàlla ànd nekk benn di liggéey tey nag boo gisee ma taxaw antenne bi moom moo bokkoon ma tax rek dama ko noonu sax du ma ñëw ndax man boolewul ñu ci dara mun ma ñëw rek nga wax li nga bëgg doo ci li nga bëgg ñu nag ay jigéen yéen ñi fu ñu mën a gàtt ngir yàlla te yàlla tax ci gànnaaw ngeen boobu ñu gas ko dimbali ñu ci ba ndax bu ñëwee ñu dugg ci kër yi ay jàpp ñu nag ñii bi ñu bàyyi xel nee naa tam mu defal ñu benn déglu boo xam ne bu paree dañ sol suñu dàll fu ñu mën a xam dinañ taxaw

sunu fii école bii jiitalu ci alal sunu doom yi nga xamante ne dañu doon taxawaal amuñu moyen pour dugal leen ci école franco-arabe yi te franco-arabe yi moom lii lii am diine am xam Bassirou dem dem tabax lii doomam mu teg ko fii di Amady dem jiital ko dërër bi mu ñëwee daf ñëwoo ba ñu ñëw mu ne bépp xale bi nga xam ne taxawaalu ci kañ bi paaraama ne seen loxo jot jot dina nañu ñëw nañu ñëw ñu jàng weer bu dee ba ñu taxaw keroog ba ngay dawantu di fortaat ba nga ànd ñu xam ne ànd sonn nañu benn yoon moo tax président bi ñëw bi ñu demee foofu ma ne ko ma wax jooytu ko suñu problème dama kaa ne balaa maa jooy suñu problème dama ñëw ci ànd ndax yow buñ la xamee yàlla bi nii moo ko jàppalee du moom nga jàppale ànd boo ko jàppalee dafa mel ni suñu njaboot nga jàppale ndax ànd ko jàppalee dina cëri doom yi suñu doom yi fi la dëkk kon boog moom ni ñu ko ànd lépp lu ñu am ci yow dañ la koy gërëm gannaaw ba ñu gërëm ne yàlla dañ boo tolloo soo soo dañuy soo soo gis nga boto yi nii la ñu wëree bàyyi naa ci digg digg bi def nañ six ans am nañu def sept ans man man def naa sax sept ans ba ma fi ñëwee ba léegi aw ma ndax aw ma ko sunu yoon dañuy am problème waxuñu ne xëy na buñ la ko joxee ko tey tey tey tey di ñu ko mën a xajaajal waaye dañ la koy wax nag ñeene ñu am ko ci yow te yàlla na ko yàlla ñu gën dem ba suñu solee bu ñu nee ñëw leen dañu am na politicien bu ñu woo dañu duñu xam sax dañuy tàggat suñu borom kër yi ndax suñu borom kër yi tout le temps ñu ne ñu yéen ñu ngi leen di nax da dëgg effectivement parce que ñun fu ñu woo ñu bàyyi suñu yitte kër dem te ba ñu la ñuy dem yëpp amatuñu lu ñu bëgg xool fan la poto mën a demee xanaa au moins sax mais boo mënul faju fajal nit ñi seen soxla nga def comme Habib ñaari bii de léeg-léeg nga doxoon bu ñëw xool ñii fi ñu dëkk yónni boo mënul ñëw nga yónni sa ñëpp ba dëgg mais jamais dañuy gis kenn ñun na naxel bi moo foofu ku ñuy ne ñëw dañuy ñëw ànd na yàlla di ko ah gëm naa ne yàlla dina ko defal ci abim yaa te yàlla na ko yàlla def naa erreur sax maam bu baax lii di siyaare jégal saara ñun nag dañu bëgg ku ñu jàppale ci ndoxu courant gannaaw yàlla def na am nañ fi école suñu doom yi lu ñu doon jooy yàlla defal nañu tey ñun fii dugg di jàng xam-xam li seen waajur yi xamul sax yàlla man ma def ñoom ñu xam lu ñu mënul jàng ci alxuraan xëy na ñoom bu ñu demee ba dëgg dinañ ko jàngal ñuy waxati nag ñu wutal ñu benn ustaas yi nga xamante ne nga xam ne bëggul dërëmu kenn mu woo ñu ñun jigéen ñi ne ñu képp bëgg a jàngal di ñëwal mu jàngal ñu ñëw mu ñuy jàng ah baax naa xamee ma ko woon. léegi maa ngi koy xàmmee bu baax baax di commencé boole arafat nga la jigéen ñi ku ci bëgg a jàng te xam ne ñun lii ñuy jàng fii bés bu ñu dee suñu jàng la ëllëg nañu jéem a dagg suñu yéen yi tey ñëw di jàng ci alxuraan man de nee naa leen lu weesu weesu waaye lii sama kanam incha allah rabbi dinaa ci jéem a taxaw ndax damay bëgg bu sama doom jàngee bu dul noonu ma gàggante ko mais fu mu toll damay ragal ne samay doom ñoom ñoo may nar a loolu laa leen waxal oustaz yaay tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla may ko gudd fan ak wér fu mu bëgg a àgg ci diine yàlla ko fi loolu la ñu bëggoon a yaa ku ñu jàppale ci ndox courant amuñu ndox a métti na lool te ñun boo xoolee poto bi fee nee fu muy a pour ñëw suñu ko soriwul soriwul dara dara dara keroog wax naa la ko ba ma ko ñëwee ma ne ñu am problème bu ñu gën a soxla mooy suñu jàkka jàkka ji yàlla def na xëy na dañ la gën a xam départ nañ ko ba Poulé mais li ñu ko mottali ak poto bi ñuy xëcc ñëw ba foofu moom la ñu doon ma ne la lépp loo ñuy dimbali na nga ko jaaree ci loxo Imam Sarr foog naa loolu laa la wax bëgg rek ku ñu jàppale te yàlla tax jàkka jàng ne fi eh, sooy bu dara waaw gannaaw loolu nag. foog naa loolu rek la ñu xamoon li nga xamante ne mooy suñu problème mënuloo yoon yi war naa yoon yi ku ñu jàppale ba ñuy am clando yu dugg wala dañoo bëri problème fi mu toll boo waxee lii am noo bàyyi mais boo toogee comme wax da lay looloo tax parewul yoon yi mu ngi fi poste de santé war na ndax fii lëndëm na amul oto amul dara jigéen bu nekkee euh, bu nekkee en bu tolloo ci diggante guddi nga koy yëngu fii lay dox ba poste de santé loolu dafa métti ñu mel ni nekk ñu ci Sénégal man de Casamance laa dëkk jóge foofu say si fii su ma amee mbokk bu ma ne damay ñëw vacance dama naan ko déedéet buñ ñëw xam nga lu tax dama ne mu ñëw ndax ñun Casamance amatul dëkk bi nga xamante ne amul courant nga ñëw fii nekk Thiès biir Thiès soriwul dara fii ngeen dëkk fi pendant ñaata at courant mënuñu ko am mënuñu am ndox. loolu dafa rusu daanaka ba nga defaree nii ba tey yaa nit kiy ñëw bariwul dem la na xam demay defantee ñor te lu baax rek fi def kon maa ngi sant ñëpp di sant Ibrahima Sarr bi di sant yàlla nekkal na ko yàqal lu dara nag lu baax lu ne ma lu baax lu ne mi ngi ci dem ak awar di sant ñëpp di sant sama borom di sant ñëpp waaye ba loolu jàllee

mais wax na ko suñu doom war di waaw léegi nag yàlla def na ñun fu ne nag ànd ba man kër Cheikh laa commencé woon ci Idrissa Seck Omar Badiane mën naa yóbbu kon xam nga man yàgg naa ci collectif daw naa ci bu bëgg a dee oo dara te li nga nu defal la mos néew gisal dund ko woon kon nag ñoo ngi ñaan yàlla yal nit ñi yéen a ko tax a teel te di yëgoo mooy kàddu dëgg waxam booba ne jarul ma ciy dellu ndax wax bi lépp benn la ñun ñëpp benn la. am na gan yu fi yàq si tey dimanche di indaale ay teranga yoo xam ne pour koñ bi la ak waa ngeen léegi nag muy ay muy muy ay carnet santé yoo xam ne ni mu ko xamal ne la benn carnet bu ne ñaar nit war nañ ci mën a faj kon loolu suñ ko indee fii dimbali nit ñi ñi waa Nasru dimbali nit ñetti nit war nañ ci mën a fay jërëjëf sëñ bi kon dimbali nit ñi na Nasru dimbali nit ñi waa Ngent yëpp su ko defee coono yi ngeen ciy daj di góorgóorlu umput ñu lépp lu ñu fi indi rek suñ njaboot ñoo koy bëri ci suuf parce que école bi tabax ngeen ko fi waaye ñun ngeen ko fi defal suñu doom ñoo fi jàng. ñoo fiy gëstu seen diine di ñu xam-xam kon loolu ñu ñu leen nga sant dina ko bu doon leen doon fay rek luy génn suñu pass jëm si yéen konoon heure bii nii xaar na ngeen seen porte ba dem parce que xam nañ loolu génn ko fi. ñu ngi gis-gis ak ak dégg vraiment terrain la ñuy def incha allah rabbi parce que noonu la parce que ne ñun nañu topp sa ginnaaw te it. Euh, di la jàppale ci li nga bëgg xamaguñ ko nag à cent pour cent xamaguñ ko parce que boo ko man maa ngi liggéey ak yeneen maire yi maa ngi liggéey ak ñoom peut-être que c'est la première fois ñu fi doog ñu fi doog daje loolu suñu bor bu waaye li ñu gis fii rek am na suñu xel ndax diine ngi fi donc l'islam bi nga xam ne ci la ñu nambatal mi ngi fi te fekk nañ ak ak benn détermination boo ñu ngi ci parce que tey le dimanche la nga waroon a dem noppalu ji ñëw toog ñun nag liggéey ci wante entrepreneur la te lépp lu ñu li ñuy def ci école yi ak euh, ci li nga xam ne mooy social njaboot gi dong a ñu koy def ñu ngi toog comme ñoom comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi toog sa ginnaaw ñu ngi lay bëgg a jàppale xam naa ne coordonnées yi après incha allah après nañ ci jot xool nañ la ñuy mën a liggéeyee ak li nga mën a bëgg ñu def ko ak ñu jàppale lañ ci incha allah rabbi ñu def suñu tànk pour ñu xëpp suñu tànk bi ba li nga bëgg ñun ñëpp ñu ànd ko jotandoo donc mu nekk njëriñu askan bi nekk sa njëriñ nekk njëriñu askan bi صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال منعزم أنا كنت صف محمد par fii ci dëkk te bu ci ne daal laaj lu mu laaj mooy ruux ak ñu tuddee jasad muy yaram ki ak xel yi bu ci ne nag am na lu koy dundal buñ ne ruux moom Papa Bachir moom a gën a xam dara donte nag yasalunaka ani ruux kulul wax mi ànd rabbi mbirum yàlla waaye moom la koy dundal génnul ci jaamu yàlla ak bu dee xel it la koy dundal xam-xam la kon lii bokk ci liy dundal xel yi bu dee yaram it moom ñett la soxla yaramu doomu aadama soxla na ñett soxla na lu ñu tuddee alwiqaaya mooy yaram soxla na lu ko aar ndax lan li tas ndax ci lay mujjee dégg nga fi mbirum mbalit ak mbirum ndox moo xam ne day taas yàgg lu bëri te yaram ndax soxla lu koy aar ndax ci lay mujj bi ci des mooy yaram daa soxla lu koy dundal ci lekk ndax ci lay dundee waaye yaram it bu mu soxlaa lu ko aar soxla na. lu koy dundal waaye daay soxla it lu koy faj ndax ci lay wéré te mu mel ni kon ñetti yooyu rek lañ doon dund ci wàllu faj mooy yaram daa soxla na koy dundal ndax ci koy aar ndax waaye yaram soxla na ñetteel bi lu koy faj ndax ci lay wéré kon su fekkee ko loolu indi ngeen lu mel nii yéen sa salaam mu wax ci li mu wax ku dundal nit mel na ne dundal nga waa àdduna bi waaye ku rey nit mel na ne waa àdduna te dama mën a dégg ci benn docteur mu wax ma benn paracetamol bu fanaan ci biir kër mel na ni benn docteur bu fanaan ci biir kër benn paracetamol bu fanaan ci biir kër mel na ni docteur du fanaan ci kon su ko defee kon bu ngeen ñu indee wàllu paj te jamono gi ñu doon sama boo xam ne daanaka ñëpp a wérati xanaa tànnante kon loolu mu ne su kaa fay ci paj daan na wax ne su fekkoon daan na jagi métier de kon métier yi médecine lay jàng doonte nag médecine la woon donte nag bésin la woon waaye nag ci zahir bu ne fekkoon laa na jàng daal ci wàllu paj ci zahir nee na kon médecine lay kon xamoon na kon fan la mbirum bëgg taxaw ci taxawaay dundu doomu aadama kon loolu ñu ngi la koy santé bu baax a baax a ñu koy sant ci ki nga xam ne ci moom la mbir mi jaaree ndax saa sana abdi lam yaskur nii isa lam yaskur man ajre ni'matu sama jaam du ma sant mukk fekk santu ki yàlla jaarale ki ma ki ma jaarale xiiwalam ci moom kon xiiwal yooyu su fekk kon ki mu ko jaarale mu xamee kon moom mënut su kaa bañ a sant te mënoon naa kaa yemale ci moom rek moo bàyyi itam noonu noonu rek tayoo waaye bur yaatal moo taxoon mu def li kon xamee ni ayyadak allah wa nasara macha allah macha allah loolu rek lañ doon wax ba ca des nag mooy woykat bi di mu woy huwa alxabibu lesi tuja shafaa kon mu mel ni kon woykat bi daa ñëw rek sas la sas la de waaw loolu sax bu rëy la woykat bi daa ñëw sas ndax sa turandoo lañ wax ne bu ëllëg moom rek la yaakaar ne bu ëllëgee mooy xettal kon yow it na nga jàpp ne yow yaakaar ne yaay xettal nit jaar na fi jaaraat fi ci mos a jaar yëpp yàlla sos bi ci des it ma àgg waxu yàlla ci hadiisul yàlla daa ci xasil ko si ne abdi kulli fii maa uri akun laka fii maa turi hadis ba gën a dund may loolu laa ca soxla yàlla ne sew sama jaam ñu naan nekkal ci ma bëgg man yàlla ma nekkal la ci li nga bëgg su fekkee dégg nga li daa wax ak jaam bi ne yow sama jaam nekkal ci man yàlla ma nekkal la ci li nga bëgg. yàlla dafa dogal mutuelle de santé bi ñu yor dafay programme boo xam ne président Macky moo ko instauré fii ñu fal ñu pour mu gérer affaire mutuelle de santé yi muy kàddu yi. Habib dafay ànd defar ànd soxali Thiès yàlla dafa dogal sunu mutuelle bi ànd soxali askan bi donc yaakaar naa ah, ne sëñ Mansour Fawane gis nga ko ala daw rek def na ko rek vraiment ñoom Habib def na fi moom mos a gis nag policier daal joxe ay 1000 francs ay 500 Habib ne duma def loolu damay jël ay carte de santé faj faj askan wi parce que lii parce que tey jii mutuelle de santé bi mooy assurance bu saasee rek sànq bara sàmmoon bu fanaan ci kër mel na ba ko fanaan la mutuelle de santé bu carte mutuelle de santé bu nekk naa tey fanaan ci kër ak docteur Faranga parce que kii heure boo feebaree boo ko gàddoo foo dem la jël muy poste santé muy pharmacie bu de garde muy dixième muy hôpital donc dafay problème mooy président bi xarala bu nekk bëgg mbooloo mi yëpp adhéré si maam mbégte ci li Habib def parce que yàgg nañ koo dégg parce que lii fii la ko yemale def na ko jaaxal sama président def ko dara bël def ko mu ngi waaj def feneen ak feneen bu mu nee soxla askan bi lii mooy soxla askan bi mooy ma ne fu ñuy fajoo parce que képp képp ku faj wàcc rek daanaka ba nga avancé di am mbégte loolu ba teew di di andi ay carte mutuelle de santé kaane bi nag dégg naa nom de tous les mutuelles vraiment ñoo di la di gërëm di la wax tey nag mutuelle de santé ànd soxla ak santé bi di def tey kontaan trop trop trop trop trop dégg naa lu fa dégg ndax kii tey jii moo ma jàngal alxuraan moo njëkk tal ci sama man nag du ma ko sant parce que sama baay dee sama yaay dee moom nii moo fi sama baay moo fi sama yaay moom man nag kon man leneen la ma tey ngir la ngir ñaari fan sëriñ la lépp la yàlla xam na lu bëgg lii bi ñu koy defar sa papa la ci tombé mais mën naa doon signé këyit man ñi maa doon signé këyit ji ba tey ji yàlla def ko sëriñ sëriñ rek laa koy maa ngi ko sëriñ fa nga bëgg yàlla na fa yàlla yegg fu mu bëgg yàlla na ko fa yàlla yegg loolu rek laa am loo ci ñaareel koy sànni mooy kër yi damay wax naan adduna du dara adduna du dara su ko yëkkatee rek ñu sant. daal liggéey dem ci koñ bi dégg naa li ngay taxawal ci koñ bi dégg naa li ngay defal wàll te yaa ngi leen di tedd yaa ngi leen di mën li nga xam ne moom la nit di defe ci koñ bi di la ci sant nag di la ci gërëm. yàlla yàlla gën a yàgg sa taxawal ñaari at bu nekk nag maa ngi lay lay nambat di laaj sa doom bi Abidou sama rak sama jarbaat

mouvement boo xam ne boo xoolee lu ko composé mooy ay technocrate ñoo ko composé ñun ñu duñu ay politiciens yëpp lu ñu diggante doomu aadama dañ koy def carte yi xam ne dinañ ko tey waa Ngent carte yi euh, tey président yàgg na toujours di ko boo ko bëggee may rek jàppale ko si wàllu faj yi nit bu amee faj bëggu yaram bu amee éducation rek am na yëpp

te muy wax tamit nasu sañoon naa fi keroog parce que liñ ma bàyyi ma wax am na ay GIE yoo xam ne nekk nañ fii formé na leen si wàllu ONG si wàllu savon donc ñun dañu bëgg vraiment sàmmal ci yéen ay cadre nga ko si wàllu moo yëpp recensé nañ ko en tout cas ñun saa ñu toog autorité ko lii nga xam ne moom képp lii nga xam ne mooy dox bi carte booy si gox bi lii nga xam ne dox si gox bi en tout cas incha allah li leen di ñaan mooy euh, comme ni ko tubaab bi waxee rek vous entrez dans la bonne voie ñun yëpp lu ñu sàmm te yéen ko def ñun ñun yitte mooy développement moom yitteel euh, démb rek maa ko benn maire da ngay doon léegi boo da ngay doon da ngay doon da si ngay dëgg da ngay ci yox da wax ne yow soit Dakar nga far wala Thiès nga far man Thiès laa far Thiès moo la war a ñor boo nekkee président public mu doon ministre mu doon député da ngay président lii moom yitteel parce que tey képp fal tey am na si ginnaaw ñun nag suñu doxee mooy développement lañu doxee li ngi wër si gox bu nekk fépp mu xam ne ñu koy wër dañuy fekk xool lan lañ si mën a def et puis li ngi wàññi benn formation képp ku xam ne am nga sa doom am na bac wala am na benn foofu na yan bu ñëwee bu ñëwee si si siège dina bokk si formation bi am na ñu koy waajal waaw parce que keroog maa ngi soxla ko privé yi man dafa jaadu fenn recrutement fonction publique am am xale kee su aju si gisal bopp pour mu nekk man en tout cas man sama objectif mooy lan li may xeex mooy la inégalité lay xeex parce que président

bu ñu jootee am nañu benn benn cinq tonnes ciment bi ko bëgg indi fi

si wàllu éclairage yi dinañu jottali dina dig nag ñun fu ñu toll nii président mu def yëpp mais am na fi ay bonne ñu xam ne ñuy gis nii ay bonne volonté yoo xam ne ko jàppale. et puis maa ngi remercier de passage kii nga xam ne mooy responsable moo yore affaire métier bi di ko remercier bu baax a baax parce que dee ma leen doon automatiquement ma ñu njëkk a jiitu maa ngi remercier seen passage. vraiment di gërëm lii rek lancement la dinañ fexe au moins nasu. képp ku xam ne épidémie ba li may mooy combat principal c'est quoi nasu am na benn poste de santé loolu mooy sama combat principal premier bi amee mooy wax ngeen fi affaire assainissement man si assainissement laa nekkoon kon incha allah dinañ si jot lu waa mais du leen promettre xam nga li ñu bëgg mooy si mouvement bi man fa boo xam ne yëpp lu ñu dig nit ñi def si teg bët li mu mën rek mooy vraiment di leen gërëm di leen sant di ngi seen ginnaaw euh, li ñëpp lu ñu seex ak yéen dinañ ko def incha allah di si wàllu information femmes yi xam naa ne peut être du ñàkk mu am si biir délégation en femmes yi xam ne ñun ñoo leen former salle ONG bi fi leen defee formation bi vraiment maa ngi di gërëm bi de sant ñu ngi seen ginnaaw incha allah projet boo leen mën ci a sant imam di sant ñëpp ñëpp lii nga xam ne maanaam moo fi taxee yu egg ñu ko incha allah. ñu koy def def ñëpp yàlla baal ma ne nañu ko jëm jëm bu waxtu julli bi jotee ñu ñëpp dajee jël ñu suñu waxtu bi moom kenn gi ak nag yéen ngeen kii jégal ma ci wax bi leerul wax da da ci wax bi leerul wax ko yaa xam leeral dal ko ñu musal seytaane jàng fatiha bu sell ayatul kursi salaatul fatiha ñeenti yoon falakin naas boori boori يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصبح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أبدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أفضل والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم بالحق وقدره والمقدار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في المرفق وسلام في الأهل والمال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين